yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. kon alhamdulilah rabil aalamiin alhamdulilah alhamdulilah nañu yàlla julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam. ñu sant Ahmadul Xadiim ci lu yaatoo yaatu ñu ngi ziar ñëpp ci turu Baye Abdou da Ilhaamul Latiiful Xabiir ñoo amati yéene yànd ak yéen ci jamono ju ne ci li ngeen nekk ñu jàpp ne ñun ngeen koy defal te ku ci jàpp ñu lay dimbali kon day doon war tiif ci ñun fu ngeen toll fu ne bu ngeen séenoo séen te wér na ne lépp lu ñu def fii yegguñu mukk ci fa suñu yéene yegg waaye nax yàlla ki ñu dëgmal kii xam nay jéego xam na pas-pas xam na yéene te fu waay toll ci moom coobareem rek la kon ndokk mi ngeen nekkee ci lu sikk amut ci ne ci moom la jëm sëñ Afi ñu ngi jaar bu baax busu te yàlla ñaan yàlla buur bi kon la dëgëral jaar bi ñu njëkkee ko ci ki ko fi nekkal ahmadu te mat ko sëkk sëñ Muntaxa yàlla na yàlla gën koo dëgëral nam la kóolute la ab tiitër la ab sag la ay sémbam yëpp na mat sëkk te lépp ñu sémb ñu ànd ko ak moom dàq ca ngërëmul sëñ bi te daje ak moom te delloo ko ko dagaan ko rek mu tabal mu ci biiram bu soo ñu ngi siyaar bu baax lii ñu ko ñaanal sallaw law lañ la ñaanal dama yàgg di wax ni ku lay ñaanal ñun lay dimbal ndax ndax ndax yu bëree bëri bëri euh, Cheikh Abdou damay wax léeg-léeg fi ñu sëñ Afé teg tegu leen fa te loolu laa gëm ndax suñu digganteeg moom amul jéegooy gannaaw tànki gannaaw jamono ju ne saa yu dikkee ci moom day mel ni tey jii nga mës a ñëw wax naa leen ko wallaay wax naa leen ko man képp maa mës a dem ca moom ca booba ñu door a tàmbali daf maa wàccee ca kaw wàcc daf maa jëlee ca kaw wàcc mu ci suuf na ñëwal fii fii ngay añee te boobu man dong nga man képp loola dara dakku ca maa ngi añ bi di waaye cër ba rekk laa bëgg a wax jàpp googee bi fu mu xalaaw ñoo xala des gannaaw waaye moom jamono june ay tànkam kanam la jëm su jërë jëf san bu baax Cheikh Abdou ni ma koy waxee it ci yéen lu mu bëggoon bëggoon lépp sont te ngeen amu des aw des day am bu so waaye mat ngeen sëkk xatalu leen dara yaatal ngeen dama wax ne seel buñ ci yéeg yéen seel baa ngi yéeg leen te da ngeen ñoo da ngeen a teg seen tànk seen seen loxo ca suñ tànk bi fu ñu yegg ñu mën faa yegg jaar na ñëpp sant nañ ñëpp tey ñaan waxtu wii déwén na fi ñëpp fekk ñëpp anak ak kattan ak sa wér sa kattan bu ci dara damm liggéey bi ren jii mel na ni bu ma tàmbalee ci ndox mi ñaari téeméeri paquet la ndox mbutéel bi téeméer la meew mii fukki carton la ak ñaar beurre bi juróom benni carton tàndarma ji juróom benni carton presseya bi juróom laam juróom benn juróom benn kor korne bëf bi juróom meew ma juróomi carton am na fukki kilo ak ñaar yu fromage gruyère ak fukki kilo yi saucisson fukki kilo fukki kilo ak ñaar fromage gruyère ak fukki kilo yi saucisson bu su suñu yéene mooy lépp lu waay tiim fii di ko dogoo ñaanal leen ñu ko lépp lu waay tiim fii di ko dogoo ñu xoolee suñ jëf fekk ko ca te mënu na ndax kiñ ko bëggal la seereel ko kenn nit ku dul moom kon yàlla na yàgg lool yàlla na yàgg ñu yàgg ko waan rek ma dàq ko ci te jam ko ci te delloo ko lépp maa ngi tuub bu baax salaamaaleykum mburu mi <laughs> waaw mburu mi day bu soobee ak màkk màkk la fàttali nañ ko mburu mi ñaari kilo ñaari junniy kilo la <laughs> ñaari junniy kilo la waaw góor mburu mi waaw <laughs> koy fàtte fàttelu waaw dama koy fàtte fàttelu ndax ñu ne waaw mburu mi ñaari kilo ñaari junniy kilo la mm-hmm. waaw san nañ bu baax a baax san nañ bu baax a baax san nañ bu baax bu soo jaageen jëf tuwark alhamdulilah ala kulli yàlla asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay delloo bu baax di nuyu sëñ Abdoulahi di nuyu mbokk yi nga àndal yëpp di nuyu mbooleem waa Ilhaamul Latiif al Xabiir gépp ñi ñëw ak ñi ñëwul ci turu sëriñ bu so ak turu mboolem waa daairat Muqaddamatul Xidma xanaa di fasaliti rek cant gu rëy ak ngërëm lu rëy gu bàyyikoo ci sëriñ bi jëm si ci yéen ci jëf ju am solo ji nga xam ne jëfati ngeen ko tey jii tam doon loo xam ne lu ngeen yàgg a jëf la yàgg koo taxawee lool ñoo ñaan rek ni nga ko waxee mu gën a yàgg lool dégg naa ci sa biir kàddu nag nga ñaan ñaan goo xam ne xanaa da nga ñaan mu dolli ko lu am ba noppi la mooy da wax ne buñ dañuy ñaan euh, lépp lu waaye tiimati di ndogu buñ xoolee fekk seen jëf nekk ci loolu moom am na bu yàgg ndax lu jiitu ñuy woor ngeen fi lu toll ci juróom fukki saako yi bisaab ak ñeent yooyee ba fii may wax yow bis bi yàlla sàkk bisaab bi nga xam ne moom la ñuy dogee ci lañ koy defare kon ku tiim dogul rek seen jëfa nga ci biir loola doyoon na sëkk su ngeen ci dollee lii tey da ngay wax ne kon kay la ku tiimati ndogu na ci suñ jëf ëpp loolu ngay wax waaye nag ma ngi ci xaw ma nag loolu murid dinañ la ko bàyyee wala duñ la ko bàyyee waaye xam naa ne sa pas-pas yegg na ca sa yéene egg na ca seen xol egg na ca waaye bu ca seen jëf seen mën àggee itam yàlla nañ ko seen tubaab fay bu ca àgg ko it yàlla na ko fa àggale te defal leen ko na ngeen ko bëggee ci barke Cheikhul Khadim yi ngeen indi nag tey ji rawatina am xel na nga xam ne noonu la daan demee waxtu wu ne waxtu wu ne rek su dikkee day gën a yéeme ñi ñëwee tey jii gën naa yéemeeti ci tolluwaay bi ak ci rafetaay bi kon nag nii mu rëyee ak nii mu rafete yàlla na suñu borom rëyale seen lépp yàlla na suñu borom rafetale seen lépp te laqal leen ko fa yàq eggul ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi leen di wax ne daal loxo bu ñu leen tàllaloon rek mel leen tàllal ngeen ñu fukkam da ngeen a baax rek waaye bu ñu leen tàllal la Sëñ Muntaxa daan wax naan bu ñu tàllalee benn nañ leen tàllal ñaari loxo ñun waaye yéen bu ñu leen tàllalee seen ñaari loxo yéen tàllal ngeen ñu seen fukk ndax lépp lu ñuy jëf ci barab bii su duggee seenum nopp keroog lañ ca noppee am jaaxle ndax xam nañ ne xam nañ ne danañ ko amee nañ ko bëgg ci lu mën a doon nag ci ceet geek ci yeneen jëf juñ fi jëf muy màggal muy gàmm muy koor mu yeneen leneen lu fi jaar te sëriñ bi santaane ko loo ne nii ngeen ciy doxe te yàqul dara ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen fa faggoo fa fa ba woon ba mu andi woon leen ci barab bi lii ndollal la rek lu dolli ko ci seen yëf waaye la leen taxoon a jóg loola ba léegi dara manqué wu ci mi ngi doxee na na ngeen na daan doxe démb ak barki démb loolu nag day wane pas cofeel gu ngeen am ci sëriñ bi ak yéene ju ngeen am ci liggéeyal sëriñ bi ak nangu gu ngeen nangul sëriñ bi waaye nag ngeen xam ne sëriñ bi moom nii ko siñaafe di feral di waxee doonul koo xam ne dafa ñeme bor dafa am pay te képp ku muy liggéeyloo kom na a fay la comme nar a fay rek du la liggéeyloo kon lii ngeen lii ngeen euh, mel ci moom lu ne dafa nekk mu ne dafa fekk mu nekk coobareem ndax lim yor te yéene ko jullit ñëpp yéene yéene ne leen ci yéen ñii waaye bi mu leen ci yéene dox ngeen wut si ko ngir lam leen ci yéene mu mën leen ko defal lu fa am nag lu mu rëy rëy rëy rek jëfama ko ko may lam daan wax ne bu leen ma gërëm gërëm leen ki yett lab euh, lab bi yett ndab bu leen ma xarab xarab leen ndab lab bi yett ndab moom am na fulla la tal ne ndab luñ ko taaj te mu set dana ci def fullaam daal egg na ci du def ci suuf mooy ku taaju ndab du defit ci ndab lu taq yéen ñii nag raxas ngeen seeni dab ndab ba mu set wecc te wóor na ma ne ngottu leen ci ndab li kon nag na seen xel dal ci ne dana leen ko dóyal ba mu fees dell ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. liggéey bi am na xawool xabaar na ci loo xam ne bu doon noonu dong duñ ko mën mbaa duñ ko mën a àgg. suñu nam ko nam mu àgg fa fi fi mu soxla tax na mu tànn ay mbokki taalibe yoo xam ne liñ tëri lépp mën nañ ko te nangu nañ ko itam ngir yàlla mooy ñoom ñii ko ñoom يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi